responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar nuyu la jeunesse ici présente nuyu les femmes militantes et militants jàpp naa ni kàddu gi mën naa bañ a gudd tey ci Medinatul Salaam suñu rakk suñu xarit Malick Dia war na coalition Jammi Sénégal bu tàmbalee ci Medinatu Salaam loolu lu ñu war a mën a nangu mooy dëkkub jàmm ñun jàmm la ñu woote moo tax ñu tuddee suñu bopp coalition Jàmmi Sénégal focus sur la campagne électorale une campagne civilisée débat d'idées échange de programme waxtaan xam fan la ñu bëgg a jëme suñu dëkk population yi ñooy le maître du jeu ñoom ñooy tànn ñu tànn ki nga xam ni mooy coalition Jàmmi Sénégal dinañu liggéey liggéey bi teg ko ci yoon jële fi ñii fi ne nga xam ni ils ont fini de montrer leur insuffisance ils ont fini de montrer leur incompétence teg fi équipe bu dëgër mu liggéey dëkk bi ci cinq ans yu gaaw te leer dana la wax ak yow li ma a wax ak yow parce que vous avez montré que Louga ne nañu waaw. Et comme j'ai dit, la victoire est proche, mesdames, messieurs. Vous voyez, elle n'est pas encore acquise. La victoire est proche, elle n'est pas encore acquise. Ne dormons pas sur nos lauriers. nañu gën a souder les rangs joxante loxo. bokk ndey bokk baay bañ a juum ci objectif bi bu le 23 ñu réglé problème bi nga xam ni mooy problème mu Louga.